ginnaaw bi ne sant yàlla julli ci yonent ba sant sëñ Touba de ñaanal sëriñ Mountakha yàlla na yàlla yàggal ko ci sunu kanam mbooloo mi ne bu ngeen gisee ma ñemee dugg seen biir man rek am na émission yoo xam ne ragalu ma caa feeñ man émission bëgg sëñ Touba ak liggéey sëñ Touba bu fu ma ko fekk naa ci dugg ay jëmma ngi ne yoo xam ne seen métier mii li gën a jafe daane ci ñoom ab yar ak ay teggin akuk akuk déggoo. kenn ku ci ne mi nga xam-xam boo xam ne bi ne mën na cee jëriñ réew mi lépp ñu boole ko àndandoo ko bëgg koo jëriñ réew mi na ah, sëñ Tuubaa nag ndaa am lu kenn amul moo tax ndaw ñii nga gis ne ak mag ñi xel ñi ngi bi jaaw ñoom ñëpp ñu àndandoo waxtu wu màggal Tuubaa ñëwee waxuñu bàyyi ñoo ñenn ñi dañuy bàyyi seen i lal toog ci suuf waaye ñoom dañuy bàyyi seen i lal bàyyi seen kër nekk ci biir terrain bi képp ku mu mën a doon foo paane daañ dafa fekk dépanné la ci xol bu sedd guy déree yow yow ma paan ñoom ñoo lay ëpp ñoom ñu lay dépensé kon nag mbooloo mii président Macky maa ngi lay ñaan nga xam ne mbooloo mu ma ta dugal loxo ngi nii ndax léeg-léeg dañuy jóg di dem xaan wala ñu dem dépannage am ay autorités yoo xam ne bi ne dañu leen di sonal te coono boobee day ka lay sonal day dafa mel ne kon li ngeen li ñuy représenté ci réew mi loolu day la ñorul ja ah, li ma li ma li ma ciy dolli nag mooy man de mosuma leen gis si benn cérémonie xam nga fu ma leen gis sax ah? bu cérémonie yi amee gaa yi ngi cérémonie yi ñoom ñay ñëw ci cérémonie yi la ñuy xar ca yoon wa di mar de xiif de sonn di tëdd ci bitti barke dem bu kepp bi ñu jógee fii ci euh, tool sëñ Cheikh ci ci euh, euh, Thiel sëñ ku neex sëñ Fallou bu sa maa fekk mu paan mu arrêté ma ma taala na nga def ma ne ko aw mu ne ma gars yi di laay xaar ma ne ko daañu la fekk fi dépanné la ànd ak yow jiite la ba nga dem Touba te noonee lañ ko defee kon nag mbooloo mi ko am ndimbal mbaa nga am yaatal mbaa nga am jàppale ci sa doole ci say pexe war nga koo dugal ci ñoom liggéey sëñ Tuubaa da nga leen ñor ñii de seenu teel ba moom ah du ko wax man dong ndax sëñ Saali woo ko jëkk nangu ci moom lañ ko tàmbalee teg ci Alaaji Baaraam foofu leen teg leen ci kaw mu foofu Cheikh Sidi Moussa leen ci kaw mu andi nag kii nga xam ne bi ne mooy ki nga xam ne bi ne koo gis ku ne da jéem a fay si sëñ Muntaxa waaye lebal woo ko ku ne lebaloon na loo xam ne bi ne bi mu daan toog ci jal bi da koy jéem fay kon nag buñu dikkee nag ànd bootu nag ci gannaawam di dégloo te man de lii ma wax naa ko seere ndax cérémonie euh, euh, de awma ci soxla moo tax man tam mosuma leen sàkk te duñ dem waaye fu ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa fu ne de dem naa fa te fu ma dem fekk naa leen fa Daaru Salaam Maodo Murid ana ñas ñoo àndoon maa ngi moom ban wëlbati koo am nañ ay jafe-jafe yoon waaye dañ koo muñ ñëpp ba ñëpp dem kon nag man ne li may ñaan sëñ Tuubaa laa koy ñaan mu mu yëkkati leen ca kaw te dootu leen wàcc mukk maa ngi ñaan seen liggéey bii yàlla na barkeel ba ni ngeen ci boolee ñëpp yal nañu sëñ Tuubaa fab yëkkati leen ca kaw ndax ndaw ñoo xam ne bi ne am mag ak ndaw ñoo xam ne bi ku ne am nga kër màggal gi ñëw màggalu sëñ Tuubaa gi nga xam ne bi ne kenn ku ne ndax man man mii di sama sëriñ damaa sama kër daane fii mu ma ma bu dikkee bëgg ma toog fa ma ne ko sëñ bi man màggal gi bu ñëwee du ma toog sa kër ndax sama kër samay gan dañuy ñëw ci samay gan laay toog mu ne may naa la loolu kon ñii nag ñoom am na ñoom kenn xañu leen ko ñu fab seen i jukko ak seeni xalaat defal ko seen bopp wëlbati ko waat ñëpp toog seen i lal ñëpp na jaaban seen biir kat ñoom ñu nekk ci terrain bi man de sant naa leen gërëm naa leen maa ngi ñaan sëñ Mountakha jëmm yii sunu message bi bokk see ci yow ñi nga xam bi ne yor nañ lii nañ gis ñii te geesu leen maa ngi ñaan yàlla bu leen kenn tëju. mbooloo mi ma àndal dama dañoo dañoo nekk nit ñoo xam ne maanaam nit ñu passeefu lañ. te li ñuy def dañ koo bëgg te xeebuñu ci kenn ndax man li may xeebu xeebu xeebu dañ maa jël teg ci seen kanam. te loolu itam doon sas wu rëy ci man te ba pare ñu walbati ko woyofalal ma ko ba mu woyof toy ci man ndax kenn ku nekk fa nga bànqaas ba nga féete nga xam ne dañ koo jël teg ko ci sa loxo gis naa na nga cey doxe noppal ma ci lool te it bu fekkoon ne maanaam am na lu ca galfan faw ma nekk di ci jéem dara wala ma ci jéem lu ma waaye kenn ku nekk li commencé ci secrétariat général ba ci responsable yi yëpp ba ci sëñ Mor Niass nag moom dama koy beral kii ndax moom daa moo ñu mag waaye teewul moo ñu gën a sawar moo ñu gën a bëgg liggéey bi wax dëgg yàlla nun ñëpp ñoo ko ameel euh, ngërëm te it exemple la ci nun kenn ku nekk war ngaa xool ci moom ba bu ëllëgee nga mën a soññ sa bopp ndax am na ñoo xam ne boo àndeek ñoom ci mbooloo dañ dañ lay soññ te moom dafa bokk ci ñooñu kon ñu ngi koy ñaanal wergu yaram ak fan wu gudd ak lu mu yootu yàlla na ko yàlla jàppandil ba mu jot mbir association bi nag euh, maa ngi ñaan li commencé ci kaw ba ci suuf maa ngi ñaan képp ku ci nekk la nga aajowoo yaa ko xam yal na la ko buur yàlla fajal te kenn du ci amu yoon kenn ku nekk yaa xam la nga aajowoo yal nañu ko yàlla fajal nun ñëpp ba kenn ku ci nekk am li nga bëgg te kenn du ci amu yoon. waaw loolu moom euh, wax dëgg yàlla damaa yaakaar ne ñi te nekk ci dëkk bi ak autorité yi war na ñoo xam fan lañ toll nag ci liggéey bi ndax liggéey bi dëgg la Sëñ Tuubaa ko moom waaye bindee fi yàlla yi lañ koy defal te social kenn ku ne xam na ne social lu yaatu la social bi ñuy def nag maanaam day bañ jógee ba léegi. dañuy def sunu doole ak sunu kattan ak sunu man-man ak sunu kii waaye nag li ñu bëgg daal mooy euh, moo xam muy euh, euh, ba defee yi nga xam ne maanaam dañuy liggéeyal yàlla te Serigne Touba ñor leen wala autorité yi wala Serigne si nga xam ne tamit seen maam la liggéeyal te ñoo moom Touba war nañ cee dugal seen loxo bu baax a baax a baax a baax ndax bari na moyen yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ci sonnu lool lu xeetoog ay otoog ak bagage yi ñu war a liggéeyee ak yooyu yëpp ñu ngi tàllal ñëpp loxo ñu ngi tàllal ñëpp loxo képp koo xam ne daal ah, liggéey Serigne Touba neex na la woo nañ la nun nag du ñu dem ci kenn moom di ko sonal ñuy darte darte am nañ nag ay partenaires personnels yoo xam ne saa yu liggéey jotee ñoom bu ñu demul sax dinañ ñu woo yëkkati seen alal jox ñu ñooñu nag bu ma nekkee di lim da damay juum waaye ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm jaageen jëf jërëgeen jëf. waaw asalaamaaleykum sëñ bi li nga laaj am na solo lool dees na la ci tontu euh, liggéey bi euh, maanaam ci door bi bi ñu demee ci sëriñ Sidi Muxtaar dañu woon nañ ko yaatal te da koy ànd ak nun moo tax yëmale wuñ ko ci biir dëkk bi rek fépp foo xam ne woote diini la buñ ca buñ ko déggee dees na jàpp ay ndaw jël suñ oto ak suñ doole ak suñ lépp dem ca nam ware def fa lañ fa war a def bu matee ñu ñibbisiwaat ànd ak suñuy xel ak suñuy lépp. am na ku ci bëgg a bokk ku ne maanaam bu ñu la boo xamante ni jot nga jot nga nga xam mooy secrétaire euh, ma kii Ablaye Ndaw mu ngi gaaraasu Daaru Musi en face gaaraasu Daaru Musi boo fa demee dina la euh, ay carte membre la am carte membre yet 5000 francs lañ koy jaayee. ku ci bëgg a bokk boo dikkee boo amee 5000 francs boo dikkee ci Ablaye Ndaw en France gaaraasu Daaru Musi da nga euh, dina la ko jaay aw communication boobu àgg na am na ñoo xam si àgg na ci ñoom àgg na ci ñoom ndax euh, maanaam bi ñu bu ñu loolu amee dañoo jël suñu oto wër gi nga xam ne ay garage lañ nekk ci oto ci dëkk bi ñu dem ci ñoom ay chef de garage ñu dem ci ñoom wax leen affaire bi ni muy doxee lépp ñu leeral leen ko A ba Z na muy doxee ginnaaw loola ba mu jàlleet dañoo jël oto defaat ci def ci matériel boo xamante ni wër corniche bi wax ci képp koo xam si bëgg nga ci bokk wala nu mu mën a demee na nga ñëw ci réunion générale bi ñuy ñëw boo ñëwee ci am leer nañ loolu def nañ ko. loolu xaw na maanaam bu ñuy bu ñu génn léeg-léeg rek bu ñuy génn ñu am ko tuuti waaye nag du tax mu garaaw noonu ndax bu boobaa am nañ ci ñoo xamante ni bu ñu leen woo rek bu ñu wootee incha allah day daal di woyof. Poroxaan moom li ñu ci nga xamante ni mooy sunu nun moom mooy incha allah fi mu toll nii ñoo ngi ci programme boobu. programme bi ñoo ngi ci biig rek bi ñu xam ne si mooy alxames yi nga xam ne moom la ñuy def bi ñu dikkee bi ñuy réunion ci lool Poroxaan lañ doon waxtaan. noo ngi jël suñuy maanaam suñuy matuwaay lépp loo xam si luñ fa war a mën a doxe la ak luñ fa war a mën a jëfandikoo la lépp loolu ñoo ngi ci fi toll nii di ci dox di ci wax ba maanaam am na ñoo xam si sax jote joxe joxe nañ la nga xam si ñoom moom lañ ci war a def joxe nañ ko fi ñu toll nii mat na ci ñoom seen wàll ñoom mu des la nga xamante mooy notaire yi kese moo des ci ñoom waaye li ñu ci war a joxe joxe nañ ko ci waaw loolu loolu ba tey ñoo ngi ci waaye xam nga dañoo dañoo dañoo dafa am loo xamante ni egguguñ ci am na foo xam ne si dem nañ fa am fa ay kii yoo xamante ni waxtaan nañoo ñoom mais sampaguñ fa nag ay sees dëgg-dëgg waaye nag loolu bu Porokhane di jàllee incha allahu rabbi loolu dees na ci dox. ci nag euh, tàllal loxo ñëpp ñi nga xamante ni Porokhane jii képp koo xam si kuy liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne Touba ca nga xamante ni liggéeyal koo xamante ni ku tagatémbe la nga koy li ñor la ñoo ngi lay tàllal loxo ci la la ci woo kum mën a doon nag ak foo mën a ne bàyyiwuñu kenn lépp loo xam ne si loo man la rek ñoo la ciy woo wasalaamaaleykum wa rahmatullah